coow li bëri na nag bëri na torop ñun dañoo jël benn dogal mooy gannaaw si tey si ma génnee suma candidature ci élection yi ndax jàmm la ñu ak élection yoo xam ne dafa lalu ci jàmm ku war a gañe gañe ñu jàppale ko mu jiite réew mi ñu liggéey suñu Sénégal ndax mérité wuñ ñun vraiment fitna fitna mérité wuñ ko ndax sunu intérêt dañ koy jël teg fële jiital intérêt réew mi bu dee coow dafa nar a am ma teggi suma intérêt teg ko ne jiital intérêt réew mi élection yi am ci jàmm ak salaam coow li fay ki war a gañe gañe te élection yi nag ñu fexe ba ñu def ko fii ak le avril ndax nit ñi mun a am jàmm